am lu mu ko sànni am liise kepp tànk ya wulli am liise mbëru TFM maa ngi noonu <laughs> cey làmb wulli am liise wulli am na lu muy ñaan da ko bëgg a sotti da ko bëgg a sànni ci diggante tànk am liise ya waaye am daa bañ am liise wulli am lii sa wulli waa lii wulli am na benn avertissement wulli amaat na deux avertissement wulli am na deux avertissement wulli am lii sëy dem yàggatul dara wulli am lycée abit sifle na wulli moom la ñu jàkkaarloo am lycée wulli jël na ko wulli jël na ko wala am lycée jël na ko wulee ngi koy dóor wulee ngi koy dóor wulee ngi dóor ko wulee ngi dóor wulee ngay dóor wulee ngay dóor jël nañ ko wulli jël na ko wulli am lycée am lycée plaqué na ko am lycée wulli am lycée wulli eh wulee goog <laughs> wulee yi noonu am lycée jàpp na am lycée jàpp na am lycée jàpp na am lycée wulli moo wan kanam wulli am lycée am lycée wulli lycée wuli am lycée wuli am lycée léegi am lycée wuli am lycée am jël léegi am dafa ndànk boo saaga nu dina la fàq ആംലിസെ ഉള്ളി ആംലിസെ ഉള്ളി jàppante nañu ñoom ñaar am lii sa am lii sa maam lycée ku nekk jàpp nga ndengeñ am lycée wuli eh wuli fàq na ko am ah, lycée jàpp na wuli fan la sori na eh wulee ngay bëre waaw waaw am lycée wuli am liise wulli am liise dafa bëgg lu mu jàppee ba daan waaye wulli du ci bàyyi noo mën a def ñam am liise wulli am liise jàpp na wulli am na benn loxo ci ngemb am liise wulli am liise daan na liise daan wuli da koo takk am liise daan na wuli bu léegay tëdd wuli lu am liise daan na wuli bu léegay tëdd lan la wax wóyaay wala wóyaay yooyu moo teefe ma daanu na moo teefe ma daanu na <laughs> e Fatma